waaw salaamaaleykum ba tey ñu ngi ci euh, li nga xamni moy cérémonie bi muy euh, ouverture euh, institut Thales Afrique ñu togo kenn ko xamanteni ci si Michel Michel Bass directeur technique bi nga xamni moy institut institut bi monsieur Bass ñu ngi lay nuyu. mang ngi leen di fay. sank gis nañ sa taxaway ci liggéey bi mais heureusement que le directeur n'est pas là muy Pape Ousmane Sané mais bi ñuy gis la en tant que directeur technique ak euh, cérémonie bi nu mu demee nii yan kàddu nga am yo xam yang koy sanni ci ak invité yi fi ñëw ak professeur bi nga xam mo fi nekkon sank doon def euh, li nga xam ni may conférence bi. waaw di leen gërëm di leen sant gërëm ñëpp ñi fi teew ñëpp euh, ndaxte ku nekk gis nga né nous sommes au milieu de la semaine mardi mercredi ku nekk am préoccupation moy ku nekk am na loo def mais ñëpp bayyi ku bayyi ñëw nekk fi rek. xamal ni kooku moom vraiment dañ ko war a gërëm sant ko bu baax a baax di gërëm euh, ku def leçon inaugurale bi Cheikh Ibrahima Ibra Fall Ndiaye teg sam université gërëm professeur euh, doyen honoraire Mamadou Badji monsieur Doumbouya ak ñëpp ñu fi teew ñëpp journaliste yi gars yi ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant taxawaay bi nag li ko waral mooy xam nga nit moom bu la wóolu ba dënk la da ko waral matal sakk ba mu ne ah sa waay de gërëm naa la parce que ndënkaan yi moom lu am solo la fulow surtout confiance bu kóolute da ko war a sàmm doxal ko ni nga ko war a doxalee ba ki la dënk bu la laajee nga jox ko wala bu gisee say jëf mën a kontaan te Ousmane nag euh, <clears throat> sama frère la sama xarit la dañoo yàgg comme niñ ko waxee sànq rek ku ñu boole nekkatu fi mooy commissaire Ibrahima Cissé El Ibrahima Cissé moo ñu boole depuis lors nak ñu jàppante nek ay xarit nek ay frère ci lepp lu muy duggu daf ma koy wax ci lepp lu ma nek man ma wax ko ko depuis le début du projet ñun ñong ci ciy liggéey ci di ci di ci waslu ak daal mo ñu boole lu mo waral sama taxaway waaw. sànq deug nañ la nga ni fi siège social bi la te ñew fi xamna yombul ñu né école bi nga ni école bi mi ngi entre Liberté 6 peut-être ak euh, Ouest Foire Euh, est-ce que loolu maanaam du nekk loo xam ni tey jii fii ñu defee ouverture bi ba pare deuxièmement aussi euh, est-ce que école bi yenn da ngeen di recevoir ay sénégalais rek wala am na ñeneen ñoo xam ne nekkuñu ay sénégalais jóge ci yeneen réew pour ñëw fii ci dëkk bi di fi jàng si. waaw di la fàttali ne rek fii nii comme li ma la ko waxee sànq siège social la mooy fi administration bi nekk.

nekkul ci kaw tali c'est pas accessible pas c'est pas accessible mais dese naa ci kaw tali bi donc mo taxone ñu jël Nord Foire Ouest Foire ak Liberté 6 pour défé fa cours di fa defee séminaire mais fi aussi dañ fay def dañ fi def ay ay séminaire aussi euh, administration non lay doxé bu organisation bi baxé rek fonctionnement bi day bax ñun non la fonctionner léegi lii aju ci euh, étudiant étudiant sénégalais ou non ñun déjà am nous ñi nga xamante inscrire nekk Guinée nekk Côte d'Ivoire un peu partout Nous sommes ne dañoo bëgg ñëw Sénégal donc Sénégal ak Afrique ak Europe ñëpp lañ boole parce que nu ñu ko waxee institut Thalès xam-xamu Thalès ñëpp ko nous. du Europe du Asie du ñëpp ko nous. c'est fait moo tax ñun amuñu frontière amuñu képp quelques mën ñëw gis sa bopp ci institut bi nga ñëw du jàng loo ci séntu di ko am incha allah. loo ci séntu di am incha allah euh, est-ce que mënoon nañoo xam à peu près yéen seen euh, seen nombre étudiants yi nga xam ne am ngeen ko ba pare en plus est-ce que état pare na pour jàppale leen parce que c'est une école privée ah bu nit ñi jàngee ba noppi tey ba ngeen jox leen seen diplôme est-ce que état dina leen euh, état ji dina jàppale école bi. ba nga xam ne tey ñooñu daal ñu gën a mën a ci liggéey état. waaw c'est normal euh, école privée boo gis wala institut privé bogis. gis d'abord état la fi nekkal parce que balaa ngaa samp say je ne sais pas say reen il faut nga jaar ci li état wax ba pare nga sampu a samp say école eta nag état lu mu seq ak yeneen école yëpp lay ak suñu école. léegi nag aaju na ci suñuy performance suñuy doxalin ak suñu xam-xam ak lan la ñuy def ci école yi ak lan lañu def ci Sénégal parce que yëmuñu rek ci jàngale ci njàng ak njàngale dañoo bëgg a participer ci développement Sénégal mooy lan li question d'actualité ñu waxtaan ci débat ci tiire ci ay conclusions def ci ay recommandations jox ko ñëpp lii mooy waa institut Talév lan li ñu wax ci wàllu par exemple xeex. terrorisme xeex drogue xeex naka su dul noonu ak yëpp ak yëpp ak yëpp ñun dañoo fas yéene participer ci développement économique ak social dëkk bi ñëwuñ rek yemuñ rek ci jàng ak jàngale pare ñoom ñibbi déedéet dañoo war a génn xam fan mooy métti Sénégal ñu jéem ko faj parce que ay ndaw la ñi am xam-xam macha allah donc dañ cee war a bokk jaarale ko nag ci école bi nga xamante ne ndaw yi da leen li former def ci ñoom. li tax ñu mën a développer Sénégal ñiy liggéey ba pare professionnels yi ñu yokk leen xam-xam jàppale leen jeex na donc institut bi noonu la wi mais gis nañ ni Pape Moussa moom ko uute quoi mi ngi bitim réew mais gis nañ fi jabaram Pape Ousmane mais gis nañ jabaram mo fi neke nga ànd ak moom ci liggéey bi jabaram gis nañ ni mi ngi gérer aussi franchement yéen kàddu nga am yoo ci sànni ci diggante loolu moo leen fi bàyyi yéen ñaar ngeen mën ko gérer. waaw Ousmane léegi mu ñëw sax. mais jabaram yi tamit madame Sané ndey Fatou sar jambar la mom jambar la ligue bi yëpp moko def ligue bi yëpp moko def donc diko ko diko sante di sante équipe bi hmm atab madame Diallo gars yi yëpp maa ngi sante di leen gërëm bu baaxa baaxa baax est-ce que pare ngeen activité bu ngeen am ngeen wo Allo Dakar ñu couvrir leen parce que social moko taxajok inshallah inshallah jóg. Allo Dakar mom vraiment ñoo ngi leen di gërëm di leen sante